alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin monsieur le président de la république yaag délégation bi nga àndal bépp noo ngi leen di nuyu ci turu sunu kilifa ci sunu mag ci sunu sëriñ di sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xafidahullahu wa raa te rakkam yore kàddoom de Cheikh Mouhamadou Bachir teewal ko fi ànd ak yow ci liggéey bi kon kàddu yi kàddu yi li ci jiitu mooy sant sunu borom tabaraka wa taala sant sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sant sunu sëriñ bi sunu tey ëllëg di a cheikh ahmad bamba xaadim rasul ridwanullahi alayhi wa nafaana bi li nuy sant yàlla mooy dafa am lu sëñ Tuubaa ñaanoon wax ne leen Moustapha ne waytu waaye jot suna taxul xanaa way ni ahmadu yéeneem moo doon ñëw di yeesal di renover yoon bi nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xàlloon sëñ ñaan sët yoo xam ne dañuy teg seen tànk ci alxuraan ak sunna di feddali sunna di ko taxawal loolu mooy fu mel ak Cheikh Mouhamadul Muntaxa nga xam ne yoon wépp dañ koy bége di ko puukare woo ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax na ne al ulamaau warasatul anbiya xam-xam yi ñoo fi wuutu ñoo fi représenté l'ensemble des prophètes bu ngeen demee ba gisatu leen yonent waroon xam-xam yu mag yi nga xam ni moo xam ñi ñi fi xàlloon njëriñi moo xam ñi fi sos turuq yi waaye waroon xam-xam yooyu ñoo fi wutu yonent yëpp ñooñu nag ci li Seex Muhammadul Muntaxa bokk di mbégteem yoonu wépp di mbégteem diine yëpp di mbégteem Afrique yëpp di mbégtam umma islamique bépp kon nuy jiital ci kàddu yi kàddu yi sant ak kàddu yi ñaan di ñaan suñu borom tabaraka wa taala al ali al qadir mu may ko fan gudd te may ko wér te yàggal ko fi monsieur le président de la république ci turu sunu sëriñ boobu di ak cheikh Mouhamadul Muntaxa te cheikh Mouhamadul Bachir teewal ko fi ak turu mboolem. njabootu sëñ Touba tàmbale ci sëriñ si di Mbacke Abdou Lahad miy jëw niñam ak mboolem njabootu Cheikh Al Khadim noo ngi lay yëgal suñuy cant ak suñuy ngërëm bu baax ndax sëriñ bi ak i bokkam ak i taalibeem amuñu lu dul sëriñ Touba yaakaaruñu lu dul sëñ Touba toppuñu ku dul sëñ Touba kon nag bu la sëñ Touba ñoree ba liggéey yu mag yii nga def nga def ko fi ngir jëmmi sëñ Touba ak ñëpp ko fi nekkal. kon yoon ñëpp ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax a baax ndax yoon wi nga xam ne moom nga fi def muy autoroute Ila Touba yoon mënul yëpp nga ko defal waaye Sénégalais yëpp nga ko defal ndax li muy jur ci njariñ kenn mënu koo xam te yemoo ci ndax hôpital bii nga def tey ci Touba. di hôpital boo xam ne capacité bi ak ak na ci trois cent personnes man fee nekk nga xam ne ni Touba gën a rëy ci Sénégal sur le plan démographique gannaaw Ndakaaru hôpital bi noonu la gën a rëy ci mboolem hôpitaux yi nekk ci biir Sénégal loolu defal nga ko sëñ Touba defal nga ko Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ko fi nekkal waaye defal nga ko yoonu murid bépp defal nga ko Sénégal bépp assainissement bii nga xam ne sumb nga ko ba joxe ci ndigal ñu fas ko yéenee def ci biir Touba incha allahu yàlla dana yàlla man naa def bu sottee xeeti gàllankoor yi fi doon ci xeeti bënn mi yëpp man naa wàññi ko bu baax. centrale électrique bi nga xam ne su mënuñ ko def ci def ay milliards lépp bëgg dëkkub Sëñ Tuubaa bi leer te mel na mu war a mel ba mbooleem bokki taalibe bokki jullit yi ak ñi fi ñëw. ku fi ñëw soxal sedd ku fi ñëw dara du manqué usine de traitement des déchets moom it xam na ne sumb ko ko fi parce que fi yéen def loolu it lépp di njëriñu population bi di njëriñu réew mi di mbégtam sëriñ bi di mbégtam bokki sëñ bi di mbégtam taalibe bi yoon yi nga xam ne itam sumb ko ko fi ñu war ko dolli ci yoonu autoroute Ila Touba lañ lépp liggéeyal sëñ Tuubaa ci jublu ak wut mbégum ki ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadul Muntaxa kon nag ci turu sëñ Mouhamadul Muntaxa ak mboolem ak ay rakkam ak i jabootam ak cheikh yi ak taalib yi ci teewal Cheikh Mouhamadul Bachir mi ko fi teewal noo ngi lay jottali suñuy cant ak suñuy ngërëm bu baax a baax ak suñuy ñaan dafa mel ni. hadis bi dafa am hadis bu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni sëriñ bi waxtu nekk maa ngi koy bàyyi xel waaye yow mi nga xam ne yaay yore wàllu bi yaa ngi koy bàyyi xel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nee na kenn ku ne ab sàmm nga te kenn ku ne da ñëw fi sama kanam ma laaj la nga doon sàmm hadis boobu nag. li tàmbali ci borom këram ak njabootam tàmbali ci kilifa diine ak ña ko yaakaar tàmbali ci chef d'état chef ak état ba mu nekk ak ñi ci dëkk aaya boobu ñoom ñëpp la ko moo ñoo tax si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wax ko te loolu buñ ko defee kenn ku ne la ngay sàmm mooy ñi yor wàllu spirituel mooy ñi ñi yor wàllu temporel ku ci ne la nga mën ak la nga xam nga jëf ko ba doomu aadama yi am tawfiix dund dundin bu rafet danga daje ngërëm suñu borom danga daje ngërëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mouhamadul Mountakha bokk na si ñi gën a dégg beneen hadiis boo xam ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wax na ndax yonent bi nee na doomu aadama bu faatoo ab lëgin jëfam lépp dagg na ba mu des ñetti yëf ilmun yantafi'u bi mooy xam-xam. boo xam ne xamoon na ko daan ko jàngalee wala mu bind téere ñu si jariñ aw amalun saalix wala jëf bu baax joo xam ne mbindee fi yàlla yi ña koy jariñoo lu mel ni lii lu mel ni hôpitaux yi lu mel ni centrale électrique yi ak lépp loo xam ne jëf la joo xam ne doomu aadama jëf na ko te moroom yi nit ñi fam di ko jariñoo di ko jëfandikoo gannaawam yonte bi ne ñaar yooyu mooy fekk doomu aadama gannaaw bu mu faatoo ba ko ñetteel nag muy waladun saalih doom ju baax juy jëf lu baax di ñaanal ay wajuram yonte bi nee nag lu dul ñett yi bu nit faatoo toyaaba ji du ko fekk ci bàmmeelam lu ma ñett yooyu rek loolu nag noo ngi sant yàlla bu baax ndax Cheikh Mouhamadul Muntaxa xam gi mu ko xam nga xam ni amul benn bëgg-bëgg amul jenn yitte sëriñ Touba ci njabootam te su ma nee liggéeyal sëriñ Touba ci njabootam njabootu dara bi ci lañu bokk waaye njabootu pas-pas bi ci lañu bokk ci mboolem jullit yi ak liggéey doomu aadama yépp waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin bu nu delloo ci alxuraanul karim dana xam ne sunu borom dana ko fay te sunu borom dana la fay ndax sunu borom moo wax ci alxuraanul karim ni وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون nee na yéen gëm yaa way way gëm yi jëf leen lu baax jëf leen lu baax bu ngeen ko jëfee man sunu borom danaa ko seede Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana ko seede ak l'ensemble des croyants ñoom ñëpp dañ ko seede way gëm ñëpp dañ ko seede kon nag dunu guddul kàddu yi dañu yeesal suñuy cant ak suñuy gërëm ci yow président de la république ak mbooleem ñi lay jàppale yeesal suñuy ñaan di ñaan suñu borom tabaraka wa taala al aliyul qadir moom mi nga xam ne dara teewu ko mu may la kattan ak ndimbal ak tawfiq ba li nga yéene liggéey say ci dëkkam bii ak ci yoonam bii ak ci réew nga def ka na nga ko bëgg suñu borom fay ci ngeen ji bay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu sëñ